الصباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر رب العالمين sant yàlla sant Sëriñ Tuubaa Seexuna Ahmadul Xadim Xadim Rasul tey jii ñoo ngi fii ci jumaay Touba ci grande mosquée ci ajjuma ji nga xam ne mooy ajjuma ji mujj suñu diggante ak màggal mu mel ne tey màggal gi tàmbale na ndax ku xool dëkk bi tey mi ngi fees dell Euh, jumaa ji mi ngi fees dell tey jii mu nekk bis boo xam ne dama ne tey jii la màggal di tàmbali euh, gannaaw loolu tam ginnaaw bi ñu siyaaree Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wër di siyaare mbooloom umul islam. Euh, di siyaare tamit sëriñ Afia Busaal imam mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ euh, nga xam ne mooy jiite liggéey bi di daayira Muxaddamaatul Xidma euh, tey jii nag seen mbokkum taalibe mi nga xam ne Assane Diop Xidma muy ñëw di yëkkati ay kaddu yu cant kaddu ngërëm yu bàyyi ko ci sëriñ Afia Busaal imam mu jëm ci mbooleem waa diaspora bi nga xam ne ñoo nekk bitim réew te diaspora bu ñu ko waxee mooy waa Amérique ak Afrique ak Asie ak Afrique Europe ak fépp fooy nekk ci bitim di la jot li nag kàdduy daayira bi cantuk daayira euh, bi nga xam ne ànd ngeen ko ak liggéey bi ndax tey jii ku xool daayira bi euh, liggéey bu mag bi mu liggéeyal Seexul Xadim fii ci jumaa ji tey euh, nga xam ne bi ñu xëyee daanaka mën naa ne indi nañ fi lu toll ci juróom-benn téeméeri doomu aadama yoo xam ñëpp ay waa xidma lañ ngir ndax dañuy wax ne képp koo xam yaa ngi màggal si tey jii boo waajee ba ñëw ak say bagage boo egsi fi nga dal li sam xel di njëkk a daj mooy dem ci jumaa ji siyaari Seexuna Ahmadul Xadim euh, tey ji taxawaay boobu daayira bi gàttandu gan ñëpp ba ñu mën a egg ci Serigne Touba ko euh, ba na mën a taxaw julli gu julli gu julli gu sell ni ñu ko bëggee kon ñoo ngi jaajëfal ñëpp di wax ne itam euh, waa diaspora nag bu ñu leen waxee maanaam mooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak dayre bi ci yitte yi nga xam ne daayira bi mi ngi koy soxla muy jàpp ci liggéey bi rawatina lu ci mel ne koor gi rawatina ci lu mel ne bis bi nga xam ne mooy màggal gi ndax bis bi mooy bis bi gën a rëy ci euh, yi daayira bi di woote ku ci jàpp yi daayira bi soxla ku ci dugal sa loxo ndax kenn ku ne xam ne ne bis bi bu bu bis bi fee bu weeru feeñee bis bi njëkk ci safar dañuy dañuy tàmbali setal jumaa ji biir ak bitti Euh, mbooloo mu takk moom itam nga xam ne moom lañ waxoon muy mm, juróom benn téeméeri euh, waa xidma ñooñu daayira bi tam moo yor loolu moo yor seen seen lépp seen añ seen reer seen i ndekki taxawaay yooyu daayira bi moo ko yor daayira bi tam moo yor entretien bi moo yor mar mbooleem luñ fi war a def daayira bi moo ko yor euh, mooy taxaw tam margu bi mooy taxaw bàqiya te loolu buñ ko xoolee waa diaspora wuy si nañ ci ndax amul benn benn saabu koor ramadan ñëwee ñu wootee te doo doo dégg lu jóge ci waa bitim réew Euh, euh, loolu tam ñëw ci jaajëfal euh, waa fondation Muxaddamatul Xidma Amérique te sëñ Cheikh Jonn sëñ Amsatu Lam ne ci bopp bi noonu la ñu siyaare waa association nationale Muxaddamatul Xidma Touba Espagne ak mboolem waa France Italie bàyyiwuñu kenn fépp fu waay nekk Angleterre Argentine Brésil mboolem fu waay nekk ba ci Afrique. bu ñu waxee Afrique Mali Touba Mali Touba Côte d'Ivoire maanaam ba Gabon bàyyiwuñu kenn fépp fay ne bitim réew rek maanaam ñoo lay jaajëfal ci taxawaay yi di soññee nag soññee boo xam ne kenn ku ne xam ne daayira bi liggéey bi mu yoral Serigne Touba tey it euh, kenn ku ne gis na ne daayira bi euh, ci jumaa ji lañ koy tàmbalee kenn gisul fenn foo xam ne def nañ fi benn baas di woote lu ñuy laaj muy xaalis wala loo xam ne lu ñuy dajale la. bu ñu xasee jàllale seen message rek mu dem ci àdduna bi foofu la ñuy yem bu ko defee nag cellules yi ak ñi ci daan jàpp kenn ku ci ne euh, daal di wuy si liggéey bi soññee fa nga nekk la daje ñu indi ko ndaxte kenn ku ne xam na ne fii liggéey bu rëy fi nekk ku xool biir jumaa ji euh, ni mu toll bu yàggut Cheikh Mamadou Mountakha joxe na ndigal waa Touba Espagne ñu yeesalaat tàpp yi bi biñ ko yeesalee mu mel ni ko sëriñ bi bëggee muy tàpp yoo xam ne dale ci barabu seexul xadim bi ba ci biir jumaa ji ba ci yokk yi fépp ñu lal ko ak tàpp ba mu fees noonu itam la ñu gisaa ne liggéey la boo xam tam dolli ko war na ci ci ci ci daayira bi ba sëriñ Afi bu Sall imaam joxoon na ndigal sëriñ Abdoulaye Thierno mu waat ay kaddu kaddu cant kaddu ngërëm ci mboolem bitim réew ci seen taxawaay ngir ñu gën a jàppaat ci liggéey bi ndax fii ñu toll nii soxla nañ ay jumtukaay yoo xam ne mooy war a taxawu tàpp yooyu ci di ko setal di ko di ko di ko taxawu ba ba ba ba ba liggéey bi gën a mën a ñoom gën a gën a gën a mel niñ ko bëggee kon daal loolu dañ ko doon indi di di di di jaajëfal ñëpp nag di wax na itamit euh, waxoon nañ ne daayira bi amal nañ ko ay carte de membre amal nañ ko ay carte barkeelu képp ku ñëw ci soowu jumaa ji ci kër sëñ euh, Damata bureau baa ngi foofu képp ku am looy barkeeloo soo ñëwee foofu incha allah di nga fa fekk waa daayira bi carte euh, barkeel yi am na ñaar téeméer bu dee carte membre bi am na deux mille cent quarante yoo xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy niñ koy adhéré woo ci daayira bi bu ko defee su màggal ñëwee nga seet lay sa coobare maanaam nga mën koo def bu koor ñëwee nga def lay sa coobare loolu mooy dem ci liggéey bi ndax daayira bi kenn ku ne xam na ne euh, niñ ko daan waxee rek euh, li ëpp ci li ñuy wooteel li jëm ci daayira bi mooy bu koor ñëwee ñu woote su màggal ñëwee ñu woote soññee waaye doonul liggéey boo xam ne tey jii muy bitim réew ak biir réew mi loo xam dañ ko saxal weer wu nekk ñu koy dajale di leen ko indil te Cheikh Amadou Mountakha dafa am lu ñu santoon daf ñu waxoon ne waxtu wu ngeen euh, li ngeen soxla ci matériel bi su ngeen ko amee euh, ngeen neen lu ngeen dajalewaat muy xaalis ni ngeen ko indil waa jumaa ji ngeen jox leen ko kon nag ci loolu rek lan doon soññee di jaajafal ñëpp di euh, siyaare nag mboolem waa xidma bépp nag bàyyiwuñu kenn di ñaan Cheikh Modou Mountakha mu yàgg lool euh, jëwriñam tam Cheikh Mouhamadoul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir nga xam ne kenn ku ne gis na itam ak taxawaayam ci daayira bi moom tam ñoo ngi koy ziar bu baax te di ko ñaanal di ziare l'ambassadeur l'islam Serigne Mamour Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Mourtada ñu ngi koy ziare bu baax fàttewuñ kenn mboolem diaspora rek fu waay ne biir réew ak bitim réew ñoo ngi lay ziare seen bokkum taalibi Assane Diop daayira Muxaddamatul Xidma euh, diaspora di wax na itam numéro bi nga xam ne tam ñoo ngi koy joxe mooy numéro daayira Muxaddamaatul Xidma bi nga xam ne mooy numéro Wave bi mooy numéro Orange Money bi képp koo xam ne daal agsi euh, ci jumaa ji dem ci bureau ba tam jafe na ci yow loo ci jaarale rek dem na ci compte jumaa ji muy 77 696 86 17 77 loolu mooy numéro Wave bi mooy numéro Orange Money bi yàlla nañ ci dajeeg barke waqti awaay jële si na daamoo fi xidmati waab lahum maaraamoo inna li si na saaraxoo li xidmati fala umu diyaar wasal jannati seen bokkum taalibe Assane Diop xidma abaaxee fi ixdaami xayril wara badaa wa fi kulli shahrin zaydu ribxi wa fi safar